E, nekk ci waajtaayu màggalu Kazu Rajab màggalu Kazu Rajab bu ñu ko waxee xel yëpp danañ dem ci ki ñuy màggalal muy Cheikh Ahmadul Fadal radiyallahu anhu ñu bëgg leen indil tey ci dara ci ak dundam ngir nit ñi mën cee jëriñu bu baax a baax ñu tànnal leen ren ci documentaire bi nga xam ne moom leen dégtal ci ci ndigalul sëriñ Abou Mbacke moom Cheikh Ahmadul Fadal e, ci ndigalul jëwriñam sëriñ Bachir Mbacke moom Cheikh sëriñ Abdul Fattah mi nga xam ne moom moo jiitee lépp lu jëm ci yëngu-yëngu màggal gi sëriñ Ahmadou Badawi yi mi ñuy teg lépp lu jëm ci teg loxoom lépp lu jëm ci wàllu communication ak culture ñi ngi leen di fas yéene indil ñaari tomb ci dundu seriñ Falilou benn muy réalisation yi nga xam ne réalisé nañ ko ak dundam ñaareel bi mooy relation yu rafet yi nga xam ne moom la amoon ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la jamonoonteeloon bu ngeen toppee jataay yi nga xam ne ñooy feeñ ci biir documentaire bi da ngeen ci am njariñ lu mat sëkk ñu séq ko ak ay personnalité yu wuute ñoo xam ne jamono te ñoo Cheikh Amadou Fadal la ñuy wax lépp ñu fekk woon ko dund ko ak ñoom kon duñ def lu may bàyyi leen ngeen topp documentaire bi 1927 làqoog sëriñ bi dafa mel ni tukkiteel ak dund ngëcc xel yëpp jaaxal ñépp nekk di tiis wax ni kenn mësa gis tiis mu toll ba tax na wuutu ko ci yooyu jamono lu jafe woon la nekkul woon loo xam ne lii doomu aadama war na koo man wala nga xam ni ko koy man day doon doomu adama joo xam ne yi sëriñ bi koy dimbalil boppam ndax yooyu jamono ni nga ko waxee jamono yu diis la woon te ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon di nooni mbër ji di tubaab yi ak ñu àndal socc woon nañu fas yéene ree ndax jàppoon nañu ni yoon wi moom gannaaw jëm nañ ko yàq ci wet gune jëm ko tasaari ci wet gune mënuñ ci dara seen li ñuy dese woon ci si yaakaar ko su néew moo di jàpp ni moom lu mën di xew mu yéex mu gaaw ku baax ki dina fi bàyyi ko te saa bu fi bàyyi ko moom mi nga xam moo téye woon yoon yoon dina tasaaroo wi njëg te ñoom ci seen bopp ñi ko noonu danañ jàpp ci taxawaay eh, tasaare boobu yi ndax danañu am lépp luñ dugal ci pexe dañ ko jële ci bitim yoon yi dugal ko ci biir yoon yi ngir tas yoon yi loolu donc nekkoon di seen yaakaar ah waaye sëñ Modou Moustapha jóg taxaw tem at yim fi jëkk nekk yëpp itam yëpp mooy mànkale yoon wi dajale leen boole leen ñu benn ba loolu yi nga xam ni moom la noonu séentu woon yemul ci bañ am yoon wi dafa gën a yokk gën a am doole gën a dëgër takkoo ni kenn nit ci gannaaw sëriñ bi sëñ Modou Moustapha ba loolu moo tax sëñ Modou Moustapha mën na liggéey liggéey bu rëy bii nga wax muy tàmbali jumaa yi bi mu fi bàyyi nag sëñ Fallou daal di taxaw bi mu taxawee moom itam itam yëpp nekkatul ci lenn lu dul def liggéey bi leen fi sëriñ bi loon muy jumaa yi Tuubaa ji te xam ni moom ci boppam sëriñ bi da ko ci joxoon ab cir boppam feeñ gi mu feeñ ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab te loolu mooy alisra wal miraaj te guddi googu ci lañ jox Moustapha alayhi salaatu salaam mbirum julli waaye kon ki feeñ ci guddi googu moom mënta ñàkk ñu taxawaloo ko julli loolu julli boo koy taxaw dangay taxaw fa yi jullee amul boobu ci àdduna ñaari yitte def ko mu benn yitteem nga xam ne boobu eh, da nga dégg di gone gu ñaanal mag naa maam yàlla nga fekkee matal jumaa ji ndax mel ni jumaa ji moom ak matam ci xarnu bële lay ñëw waaye du ñëw léegi waaye bam ko tàmbalee ak bi muy àgg dafa mel ni kiimaan la waaye kenn foogu ko waaye da ko defoon muy benn yitte di def balaa sas benn tali bi ba benn benn seex

francs ci loo xam ne nag bokkut ak xeer yi ñu daan jëlee carrière te kenn jënd ko bokkut ak ciment bi gars yi daan indi te kenn jënd ko bokkut ak li fi Cheikh Moussa Mbacke def ci teg première pierre ba ba ba ni miir ba jóg ba kawe loolu lépp bokkul ci ci xaay bi moom mooy li ñu daa fay liggéeykat yi yi nga xam danaa dañ ak architecte yi waaye booba Baye Fall yeeg baay Jenn yeeg baay sàll yeeg baay Ndiaye ñëpp laa dem carrière di fa noor ba nawet bi ñëw ñu soog a ñibbi te benn xeer bu ñuy jël génne ko di ci fay xay amul da ngay gis ku ñëw yenu aw xeer ndokk ba ba ba jumaa ji gis ku indi otoom sarse ba mu fees jumaa ji wàcc na ñoom waaye lii xaalis boo xëyee daal luñ fay la architecte yeeg ñi daal liggéey ñuy fayu 677 million six cent quarante six mille trois cent quatre vingt jumaa ji ci boppam melo wi mu mel ak taar bi mu am rafetaay bi mu rafet képp koo xam ne kii xamoo mbirum sëñ Fallou da nga naan eh archive bi de mooy góor dëgg dëgg dëgg dëgg waaye dara du ci archive bi lépp sëñ Fallou ndax dañu ko liggéey pàcc bu nekk morom ma defuñu loo xam ne dañuy tëb rek daal ni ay ci nii nii la plan moom déedéet fuñ fi toll dañ naan fii lañu toll architecte bi ñëw indil ko la nga xam ne moom la xalaat moom sëriñ ba yor kiré ma boppam toog architecte bi toog ma toog ma ne ko nii la dindil lii dindil lii defal lii defal lii kooku dem def bu defee ba noppi del si wanaat ko mu di ko corriger defal nii def ba mu jeex takk ba mu agsi ci fi mu bëgg mu ni ko lii la ñu def ci loolu yi ci la ñu euh, jàngukaay bi ni mënta ñàkk ndax faaw ñu defal kër moo sàkkit ki ko doon doon jàngale waa kër si ñam sax waaw mu ngoog jumaa ji ni ko def ba mu egg noonu nii koy yëgle nañ koy julli suñ ñëwoon mu ne nañ woo sëñ mu julli ko wala sëñ Bousso bi wala sëñ Ndiayane loolu bu boobaa ab damu dama lay doon waaye moo bind xutbaam yéeg mimbar jàng alxuraan yoo xam ne fa tabaarakallaahu ñëpp dañoo daal xutba arab boo xam ne bii fa tabaarakallaahu moom mi nga xam ne moo fi nekk sëñ Tuubaa buñ demoon bis boo bii muy ko ku ko yéegal mimbar dañuy def ci yàlla xam ne yëf am na am na am na damu dam loolu ba mu noppee dafa dal toog ne léegi dañuy wax ne képp ku dem da nga fi bàyyi naal maa ngi séeréer ñëpp ne amatuma naal loolu nag moo tax ba mu taxawee la mu jëkk a itewoo moo di màggalu Touba gi mu dellu si ko ci tu sos ko ci Touba ñu di ko fi def ndax loo ko jiitu <coughs> sëriñ bi dafa digle woon ni na ko kenn ku ne di defe këram ndax li am ci yoon wii bu fekkoon demul woon du ko am te bu ko amuloon woon kon nun duna xam fu nu jëm ndax ba muy dem li ma doon am lépp ci baatin amoon na ko waaye li ma soxaloon mooy yàlla jox ko loo xam li mosu ko jox mbindeef ci ñi koy jaamu ak ci kilifa yi ak yonent yi yàlla digganteek moom ñu bindante sartante moo dem ci liggéey ba ba dellu si am lii nga xam ne moom la am te kenn mosu ko am xelum boppam kenn ku ne xam na ni du jeex mukk xalima am du jaa daaj mukk waaye nag rëy na rëy koo xam ne gi boppam doyatu ko ci moo tax mu digal kilifa yëpp ak ni képp ko di taalibe bis bi bu dellusee nanga nga ko ko santale def ci bernde def ci jàng xasaayit jàng alxuraan bégal sa njaboot ba ñëpp xam ne lii moo ko tax a jóg boo ko defee muy cant guñ ko santale boromam ci la waxe woon nit ni ñaari keef yi li ko tàmbalee ci ganaar ba ci giléem uh, bu xeebu ci dara yéemu ci dara waaye booba sëñ Abibu nee na daaw daawuñ ko woote déedéet bu bis bi ñëwee rek kenn ku ni jàng mu sëñ bi wax ne bu ñëwee nañ ko ci santale boroomam ci jàng alxuraan xeeti salaatu ala nabi xeeti zikkar xeeti tag bu safaa waaye kenn ku ne sëkk nga koy defee loolu ñu ko defee bi mu wàccee liggéey ba ñibbi si Tuubaa Cheikh Amadou Moustapha tabarakalla wéyal xalaat boobu ba mu ca nekkee ne ca bokkoog waa kër sëriñ bi ñëpp taalib bi yeeg doom yeeg ñëpp ba yàlla def moom itam mu làqu Cheikh Ahmadul Fadil wéyal na bés boobu maanaam benn yoon wala ñaari yoon xasaba riwaayaat waaye dafa dafa dafa xëy nag bëgg ñu delloo ko ci bés boobu bii nga xam ne mooy fukki juróom-ñett yi nga xam ne sëñ bi ko waxaloon boppam. sëñ bi woo kilifa yëpp ñi ma woo ñu si sama bind la alëfa ne leen bis bi bisu màggal bi Tuubaa lañ koy defee te it soppi nañ ko ci bis bi nga xamante ne ci sëñ bi cee jógee ba Mbacke sëñ bi njëkk a woote Touba màggalu Touba gii ci Touba gii 47. ñëw fi yombul woon waaye Serigne Fallou fi ma ko njëkk a lijjante moo di waa chemin de fer ñu yor saxaar gi ñoom la gis wax ak ñoom ba déggook ñoom ci ñu di ko defal saa bu màggal ñëwee dëkk yu mag yëpp ñu wut fa ay saxaar yoo xam ne màggal doo nga leen tax a jóg xam ne train spécial lañu leen di tuddee. dugal ca nit ña indi leen Touba loolu fii la jëkk tàmbali liggéey bu boo xam ne bi jëm ci Touba la ci lu fi indi nit ñi li ñu amoon nag ci wago yoo xam ne moo mën a safi nit dafa néewoon a néewoon néew boobu fekkoon loolu rek la kenn du mën a màggal si waaye murid xër gi ñu xër te tubaab yi xam ko dafa tax lépp lu tubaab bi mas a am lu mën a béréngu ci raay bi rek da koy bis boobu dañ koy génne wagoy fas yi wagoy nag yi ba ngay euh, euh, euh, marchandise yi lépp lañuy ñuy teg ci raay bi mur yi dugg ci ba fees dal te loolu bu fekkoon sëñ Tuubaa kenn du ko woon ndax bu jóge ndakaaru wala Ndar wala xaay ba fii ci lu demee noonu neexut bu fekkoon da ci réew bi kon dañuy kalaame sax ñooy naan nit ñi dañ noo bëgg a rey waaye mur yi seen xol la ca sedd guy ñu nangu ko dañ koy fees del del del del del ba ngaa xam ni wago yi nga xam ne sax dégg nga dañoo am lu leen muur ca dañu toog ca kaw xam ne dañuy fees mel ni kenn xamul lu ñu toll tubaab bi sax dañuy waar naa waaw ñi xanaa bëgguñu seen bakkan te fekk na bëgg nañ seen bakkan sëñ bi leen ko jaral loolu mooy bu ko dee ñu sëriñ bi am ci tubaab bi ñu wàññi paas bi foo jóge jëm Touba genn wàllu paas ngay fay dafa leen ko it fukki fan ak juróom ndax booba boo duggee saxaar da ngay aller retour boo amee ñaari fan ñett mu mu mu mu jeex waaye fukki fan ak juróom la leen koy may xam ne boo jëndee paas bi da nga am fukki fan ak juróom dem Touba mën a dellusi bëgg-bëggub sëñ Touba bu ne su cay dugg da cay dugg ba xuus ci xuusin woo xam ne day day mujj rek fi ëppi loxo xam nga màggalu ne dem na ba dootu màggalu Touba màggalu la ñi nga xam ne nag nekkoon ci bitim réew ci yooyu jamono nga xam ne saxaar fa saxaar mënta ñëw bu jóge foofu ñëw fii yooyu li nga xam ne ay réew yi ak ci Afrique occidentale française la juróom-ñetti réew yooyu la ñoom sëriñ bi dafa waxante woon ak ñaari compagnie roplan fi ne ci jamono Air France ak UTA ba ñoom itam bu màggal gi dikkee dañuy yombal màggal gi lool dañuy wàññi paas yi defit ku jënd paas ku ne man ngaa toog weer dem delsi ni le sëriñ bi doxale woon ñi nga xam ni moom la ah, li ci des mooy ñi nekk ci yu gën sori ñoo ñoom ci bato yi fu fune fu ne la abdullah di jëlee jóge léegi Europe Asie Amérique ah. nga xam ne bu dikkee day mel ni mawsim la boo xam ne mawsim diini la waaye dafa mujj dem ba ba mawsim aalami la nga xam ne économique bu senegal sax da ci yokk da ci yokk dëkk bii dem moo ko nat danaa wax it na bu kenn tawax te jumaa ji àggul ndax bu jumaa ji àggee nag kenn ku ne na nga tabax tabax nañ tabax tabax yu rëy ba kuy ñëw xam ne fii sëñ Tuubaa bi dëkk waaw waaye fekk fekk fekk jumaa ji àggul nag bu fa kenn tabax moom sëriñ bi ci boppam moo sant architecte bi nga xam ne mooy architecte mooy Escatina ki defar jumaa ji moom la sant ni ko na def plan pour dëkk bi ko def plan boo xam ne bi ci jumaa ji la ko la ko doore lépp jóge ci jumaa ji dellusiwaat ci muy def ko mbedd yu yaatu fii ne mbedd yi ngis tey ji foofa la war tàmbale woon nga xam ni dañ doon waaru sax ndax mbedd yaatu yi la ñaan lu lu lees ko dee ndax yaatuwaay gi ëppoon na fi ñoom waaw moo Cheikh Sëñ Cheikh ñëw mu ne ko dama ma dëkk bi plan baa ngi nii defaroon naa ko ba fay ko donc dama am ci ñuy tëbbi ci àll yi itam boole naa ko ñoo boole naa ak yoon ak yow foo xëy ñu xëy fa loo loo joxe ñu ñu leeral ko waaw muy 1959. mu ne sëñ Cheikh nag ñaar rek am ku tabax tàggoowul ak koo xam ne ki tàggoo nañu tere ko mu tabax ku ci yoon du jot rek nañ ko nañ ko toj ndax waxoon naa ne bu kenn tabax te ci jumaa ji agul waaw. nit ñi lu leen neex lañ doon dëkkee ndax booba àll rek la boo dikkee da ngay seet fi nga xam ne moom nga bëgg. nga xotti fa li nga bëgg sàkket def sa yëf mu jeex la dem keneen def noonu keneen def noonu kenn du seet nii la wala jub naam jubatu yooyu yëpp loolu moom lañ doon doxale nga xam ni mbedd yu sew mu la woon yoo xam ne mel ni eh, ndiiru jaan dégg nga da ngay topp mbedd ba yàgg mu ni kuli wala nga topp mbedd ba yàgg dégg nga mu dëpp wala nga topp mbedd ba yàgg ak kër nga xam ni kon loolu awul woon wenn yoon woo xam ni wees moo na waxee yoonu ab yoon la ci ci yoonu dëkk nii waaye sëñ bi wax ne fu ñu àgg rek ne ne ne sëñ Cheikh bu fu ñu àgg te te mu war a jàll dama jàll ba ci man mii ba ñu mbedd mbedd mu njëkk a mu njëkk a natt gannaaw mi ñett bi nga bàyyi koo ci jumaa ji wuti kër daam dara mooy mbedd mu njëkk natt ci natt bi maa ngi ci ànd ma ko ñaareel mooy mbedd mi ñu xaaree këram gi ci digg kër gi da koy da nga ma jëkkee itam nañ ma jëkkee ñu daal di xaar kër gi boolem boolem di boolem waa kër waa kër boppam ñëpp ñu génn la keesam képp lañ fi bay nga xam ne ci guddi gi la lanu lanu lanu taxawaatal aw aw seeg sàkk ci digg bi daal génn ñoom waaw léeg ñu àgg foo xam ne fii dañuy jaaxle lool waaye euh, bu bu ko ko euh, bu ko bu ko euh, bu sëñ Cheikh yónnee Alaaji wax ko mu ne ko nekk na nooy na nooy waaye lépp dafa toog ci digg naaj bi eh, ci digg pënd bi ci digg eh, ngelaw li ci digg tàngoor bi dëng daayewul deful nen xasaay di jëm ca kaw ba lépp a jeex ndir su gàtt te lépp nag li ci gën a doy am ci mbégte ndax am sa kër ñu di ko toj neexut waaye lépp nit dañ ko ndax xam ni sëñ Tuubaa da tax ñuy def te liggéeyal sëñ Tuubaa fexe ba dëkkam bi gën a dëkk gën a baax ci dëkk yi gën koo rafetal moo tax ñëpp kenn waxtu jot ñu ngi jàng sayt ba mu jeex. moo tax ay terrasse ñëw na fi lool ay tuyaux am ak ci tabax yoo xam ne sëñ la waaye fu ñu ci àgg fu ne la ñu koy tëj loolu sëñ bi ko deflu te it noonu nañu nañu nañu lépp lu ñuy def rek loo xam ne yoon da koo def nañu ko jëkkee ci man. plan boobee nag gannaaw gi. ñi nga xam ne ñooy ñi fi war a sëñ Fallou tey ay jàmbaar kenn ku ci na tey ca palang booba nga sof ñu di ko sax baag si fay tey fii waaye bii mooy ndey ji day baa ngi nii moo tax fi ne dëkk bi yomba dem lool ndax plan bi benn xalaat la woon jumaay ji mooy dëkk bi bu ñu wax dëkk bi jumaay jee tax kon nag li am solo mooy ku jóg foo ay jóge war ak agsi mën a agsi jumaay ji bu gaaw gaaw ku jóge jumaay ji mën a génn dëkk bi gaaw gaaw noonu waaw da da ko daal moo mooy ndey ji. cinquante neuf boobu fekkee na sool sool bi ci mujjoon ak sool bi nga xam ne moom mujjoon ci liggéey bi fekkee na lamp xam ne ay càkk rek la ñu def ci diggante yooyu ak nuñ ko wootee waaye moom fekk jumaa jumaa ñu àgg dafa am leneen lu mu defal murid yi yoo xam ne it dañ koy gis te ñu bari xamuñu na mu demee muy penc mu rëy mii ci jumaa ji boo seetee jumaa ji fa miir bayam digganteem ak sëñ Fallou yaatu waa yaatu na lool digganteem ak euh, sow bi yaatu na lool digganteem ak penk bi yaatu na lool fi ci gën a xaw a bañ a tuuti rek mooy ji féete nii te moom moo ko def te ba koy def des ko ñi ma wut wax booba waaye am na ñoo xam ne métti woon na lool dañ naan mi penc lu mu doon ah barab bu yaata nii de yàq la de jaaxaloon na nit ñi booba seetal ko rek kenn xamul lu mu jaaxal leen dégg nga waaye ñi ma ñuy wax waaye léegi gis nañu ni bi fi million ñëwee tuuti na léegi ci la ma xalaatoon te <laughs> tuuti na waaw tuuti na léegi te bu njëkk boobu ñëpp yàq yàq lañ ko ñu bari bokk loolu ci jàppoon ni ëpp na ëpp na hmm, nit ñi dañoo war a gën a jege jumaa yi ndekete moom la moo gis noonu gisuñu ko na tey ku ko mën a yow des ko yokk ndax bu fekkoon demaloon nii million nit ñi fi ñëw ci maggal duñu fexej kooku ba tey ci mbiram la li sëñ Fallou jëkk def mooy fexe ba baag ak goj jóge fi daa daal di jënd ci benn société française bu wax Demaz ca Dakar benn pompe hydraulique ci yi gën a xarañ cooy jamono am doole ak crépine ak yëpp ñu dugal ko ci teen bi fekk na jàjj Fall sëñ Moussa Mbacke maa ngi mu wax jë bën ko muy teen boo xam ne du jeex mukk kii mën di ci feeñ di ndoxit mu neex te ndox mu neex lu jafe woon la li ci mata xam xamle nag moo di njëgu machine boobu yi ak installation yi ci war yëpp ak essence baag la koy doxal ak la koy baat lépp sëñ fa la ko doon fay ci poste boppam loolu lu mat a xamle loolu lu ngóor gi doon dafay dul kenn doon fay te booba xaalis yomb loolu c'est important ndax booba ndox ci réew mi lu jafe woon la bari na dëkk yoo xam ni sañcu leen woon ngir ñàkk ndox wala mu ñu tas ngir ñàkk ndox sëriñ bi ci euh, xaalisu boppam ak ci jibay boppam ci la defee ay teen yu bare bare bare bare yoo xam ne ci biir mi leen gas ndax dañuy ñëw diis ko mu jox leen ñu daal dem def ko te lool booba ndox jafe na lool looloo lam ci def ci ay lim mu ne su ko wax bari na dëkk yoo xam ne tey boo amee ba tey ñu nekk fa sëñ Fallou ah ci jamono tubaab yit te loolu kat ci jamono tubaab jamono ba ak ginnaaw gi yi la lépp ñu eh, moo ko doon def ci jamono tubaab yi itam am na gouverneur général boo xam ne moo fi nekkoon ca Dakar ñu tubaab Paul moo doon woo commissaire de la OIF yi nga xam ne moom la France yi lifoon ci soow jant mooy ki nga xam ne moo doon seen kilifa. mayoon na ko ñaari forage yu mag te booba forage xewul ndax booba li xewoon booba mooy gas teen rek ci niñ ko daan gase ci baax waaw gas boobu waaye forage yoo xam ne mooy gonsi na koy gas àgg ba ci bët bu rëy ba génne ko muy lu mën a dundal dëkk yu bare bare bare xamande leen kooku amul woon waaye gone général Béchard moo ko may ñaar te yu mag ni ko seeta fo ñu def ko forage bi ci dal bu moo fi jëkk ne nee na moo ko ci dër mutu lañ la ko gouvernement bi jëkk a jox mu notalee ndox gi ñàkk ñakk ñàkk Daaru Manaan ak Daaru Salaam mu boole mu ne nañ ko def Daaru Manaan Tuubaa Tuubaa Tuubaa ak Daaru Salaam bokk benn bi mu Muuti mu ne nañ ko def Daaru Muuti bi nga xamee ni moom nañu suñu bopp am na forage yu bari yoo xew ci réew mi yoo xam ne moom moo ko deful bi tubaab yi nekkee it dëkk yi nga xam ne dañoo ñàkk ndox bépp dëkk boo xam ne lii du moom moo ko euh, joxeel boppam joxe xaalis ñu def ko joxe na ndigal ngoor gi tubaab yi def ko fa ba tax na loolu itam lim la boo xam ni kenn mënu ko lim gannaaw loolu mu teg ci leeral euh, tàmbali leeral dëkk bi ndax dëkk bi amul woon courant te jumaa ji danañ toll foo xam ne fii ci liggéey bi dañu soxla courant jumaa yi it amul ay rajo yoo xam ni boo ci nodd mënees koo dégg foofu it moom sëñ Fallou Thiawam mu jënd ci kër gu ñuy wax Sofika ca Dakar benn groupe électrogène bu mag a mag moo ko xam ne groupe bu leeral la indi ko fii moom te ak yi si jumtuwaay ci awaar yëpp ñu installé ko wut ay fiil yoo xam ne dafa dem wër ci biir jumaa ji leeral ko defi rajo ci kaw fii soro yi tollu woon leeral pénc mi leeral kër sëñ bi mooy jumtuwaay boo xam ne bii guddi la daan dox ci maanaa bu jant soo ñu taal ko ba xaaju guddi ñu fay kooku sëriñ joxaane moo ko yoroon ah bi nga xamee ne nag yooyu wees na loolu nag la sëriñ bi sant gouvernement bi ñu jële courant ca Ndakaaru bu haute tension te war duma ba am indi ko ba fii mooy bii fi ne tey suñ fàllu ko fi indi yooyu jamono nga xam ne dimbali na Touba waaye dimbali dëkk ndax dëkk yi nga xam ne yëpp jël liñ ba jaar na fa fu fi jaar ñu leeral leen kooku xew ci xewali Sëñ Fallu bokk yore yi jamono yoon yim si Touba amul ci wenn yoon woo xam ni godrong nañ ko dikk Tuubaa yombul ndax bu fekkee Ndakaar nga jóge la ko tàmbalee Ndakaaru ba Tuubaa boo ñëwee ba cene ba foofu la godrong bi am cene ba ba njaarim rang-rang la woon foofu nag ci la sëriñ bi sant gouvernement bi Senghor ñu jëlee tali bi ca cene ba indi ko ba Tuubaa gi xam ni léegi moo dem Dakar yomb na lool waaye jooy jamono jafe na. tuwaar fa kàll dëkk yëpp da nga a ko nag Touba loolu xamuñu coono bi ñu daal ñoom ci ay jamono te benn bés soxna may ñëw ni ma maxtaar man kat dama bëgg dem Touba tey ci guddi laylatul bésu guddi laylatul xadar la dama bëgg bëgg dem yóbbu Touba dama bëgg yóbbul sama mag sëñ Touba sëñ Fallou donc bëgg yóbbul ndogu ndogu bi ñett wala ñeenti ganaar la woon mu def ko ci benn paan et benn bool plutôt benn boli ñu jóge e, Touba ci jóge Daaru Musti ci ngoon gi yóbbu ko Touba ci la jëkk jëre gise sëriñ Fallou booba yoon amu fa booba ay piste la ñu amee booba xàll ay xàll la ñu amee xam ne dafa bari suuf ak yooyu oto benn oto man sama oto 4 x la woon booba booba oto 4x4 bariwul ci réew mi et moo tax mu mën ko jël dugal ci oto bi yóbbu ko ndax bu dul woon 4 x du mën jàll du mën jàll ndax suuf si ginnaaw loolu raay bi mu ngi yemoon ci gaar bu ba te Gare bi ak dëkk bi ak jumaa ji ñaari kilomètre la te mboolem matériel moo fi ma sa wàcc bépp ciment weñ leneen foofu lañ ko daan jëlee di koy nii fii sëriñ bi bëgg lu gën a noppal nit ñi bëgg lu gën a noppal itam ñiy liggéey tax mu jële fa raay ba indi ko ba ci gaar bu ndaw fii nga xam ni di kon diggante fi mu yemoon ci gaar bu ndaw mooy fi essence bi nekkoon ak jumaa ji juróom-benn téeméeri mètre la xam ne day tax wàcc marché bi gën a gaaw day taxit bu dee jamono yi màggal nit ñi gën a jige dëkk bi marché Ocass gi it moo ko sañc euh, ñaan fii wax ne képp ku bëgg dara dana fa dem ndax booba marché bi booba kenn néew fa ab gott la itam euh, te euh, rab bu ñu xam ne gii buuse moo fa newoon di xor-xor yi mu képp sëñ bi joxe ndigal ne Euh, la marché boobu moom marché Sëñ Tuubaa la te képp bugg bëgg dara na nga fa dem. ndax marché bi dara mosu fee nekk li ko tàmbalee ci kër sëñ Fallou ba kër sëñ Nguy gi lépp ab àll dong la woon. ngeer la woon kenn dara nekkatu fi xanaa sego bi te seko bi booba dañ ko def ci digg àll bi loo ma sa soxla feneen nga koy jënd ji ci biir dëkk bi waaye dara mosu fi woon sëriñ bi ñaan ci boppam joxe suuf ne nañ ko bucca foofee def ko suuf soosee moo indi lii tey waaye ba léegi. léegi nag nañ marché yi du jeex mënuñoo fexe ba. yëpp fii fii dañuy bàyyi ko ci marché bi nga ñëw nga ñëw fii <laughs> su jeexee jeexee nga nga delloo waaye kenn gis nga ne marché bi man fees dal lu waay dee yaay indi ko fii. lepp lu nekk ci kom kom aduna bi ak senegal ñu ko indi fi ngir bëgg mu jar te day jar gox yi nga xamni mo won wëri rew yi ñu seen marché bi yépp ñu ñëw fi muy légui di barab bo xamni ne bi kenn mënatul dox sa ité ci rew mi ci maano euh, wetu économie te jaru fi loolu ñaan nga ko def mirum armel yi la ko ab ñak moko ñagu salaan ñagu tëbanaani ñagu ngeer moo fi newoon ku ñuy wax Alaaji Abdou Aziz Mbay di taal bi sëñ Fàllu moo dikk sëñ bi ñaan ko ndigal ni ko boo ma mayee ndigal danaa ko miir sëñ may ko ndigal mu miir ko miir boo xam ne bii miir en dur bu kawe ba mu nekk benn bunt loolu sëñ Fàllu ko fay def ba loolu àggee fii nga gis tey ñu di fi jullee ñi faatu sëñ Fallou ko fi de moom itam ndax moom itam El Hadj Aliou Samba Guèye <coughs> taalibeem bu mag bu nekk Kolax boo xam ne moo doon représentant moo fi doon baatam moo waa daayira Kolax ñoo ñaan sëriñ bi mooy leen digal ñu def ko fi sëñ mooy leen digal ñu tabax ko moom Cheikhuna Ahmadul Xadim dafa waajoon a bëgg a aji ba ba wax ñi nga xam ne ñoom lay àndal wax seeni jëmm am na ci ñoo xam ne ay ci jege ñaayal yi ne fii lañ am na ci ñoo xam ne naari gànnaar lañ waaye taalibeem lañ mu tudd ñam ñay dem wax itam yoon wa na muy demee waaye ba mu demee ba dara desul lu muy dem ñaari gàllankoor am ñaari gàllankoor bii bi gàllankooru baatin la benn bi bu zaahir la ndax dañ ne ko bala ngaa mën a dem da bindu leetar sàkk tubaab bi ndax yow fii mu ne tey fii nga ne sago bàyyiwu la fi tubaab bi iqaama ijbaar iqaama jamriya la nekkoon ci jaareem ba mu jógee ci géej ga ba ba ni ñibbisi fu mu nekk rek tubaab yi ñoo ko fa ñoo ko fa teg ci jàpp ne euh, ci seen coobar la war a nekk ñeenti ati gànnaar yu mujj yi juróomi ati ci yéen jolof ak fukki at ak juróom juróomi njaareem fu ci ne iqaama jamriya la ñu ne ko nak bala nga mëna a réew mi da ngay bindu lettre sakku sakku bu baax baax na nangam nangam moy nak loolu euh bi non la bataxel ci sakku jumaa ji ba seigne bakki bu soko bind seigne bi bind mustaktibu nangam nangam muhammad muhammad ibn habibullah loola euh, ñu autoriser ko waye bind bind tuba bi dal di sakut ay gen dal kon nañ ko bayyi bi nag te boobu mooy bëgg na kii dañ ne dafa wax ni yëg na ne ni mel ci Moustapha sallallahu taala dem ba ba egsi fi nga xam ne fii la Moustapha tëdd loolu moom euh, su fekkee roog yaram yi àttan na ko yi du ko àttan su fekkee yaram yi dana ko àttan roog yi du ko àttan kon nag euh, na na ko na rek loolu gannaaw xalaat na ko yàlla dogalu ko ci zaahir Cheikh Amadou Fadil dal moom loolu moom kon da koy mottali aj googee génn aj la ci yoonu murit ndax ña ca àndoon mënatuñoo àndaat Cheikh Amadou Fadil di jëmi Serigne Touba Serigne Gaawaan di rekk Cheikhul Khadim di taalibeem bu ko bu am ngërëmam Serigne Mbacke Bousso di di di rakkam di taalibeem bu am ngërëmam fees dala xam-xam ak ñañ àndaloon ñooñu yoon amatul beneen délégation aj bu mel noonu nga xam ne aj mat na ñetti weer ak ñaar fukki fan ak ñeent genn aj la aj gi mat na ñetti weer ak ñaar fukki fan ak ñeent ndax ñu ngi jógee Touba fukki fan ak ñeent ci weeru koor 1346 ñu ngi delsiyaat Touba ci bésub 8 Muharram 8 Muharram 1347 ñetti weer ak ñaar fukki fan ak ñeent la aj gi doon waaye fu nekk lañ dem fu nekk Liban Égypte Syrie fu ne te fu fuñ taxaw rek sëriñ bi bind bind ko ba mu àggee ba jàkkaarloog Moustapha daal di wax ne fa min tuuba bi taybata qad nazal naa نزول سيد شهم الهمامة فمن زار الحبيب وصاحبه فلا بخسا يخاف ولا ملامة أيا خير الأنام ومصطفي ديغنت الضريح بي أك منبر بي ودي كروغ لفا جانغ القرآن نعرف كيف أنك بان نعرف كيف أنك بان تشيدي مطارفة كامل بي ذلك أدي سياخ الخديم بمو يدفع صح يجي تبالني لما بغى أجي نيغو بي نيغو بي سياري جي مصطفى ما يار يول بما دفنا كو دي سيد ba mu ñëwee Madina Munawara Madina Munawara julli na fa ñeent ñeenti ajjuma weer wu mat la fa am ba mu fa njëkk ñëw rek la jàngab kaamil ci guddi gi tari ko dama ko addi Sëñ bés ba ñëwee Màkkatul Mukarrama foofu it defal la su moom defal la ko fa loo xam ne néew na ku ma dégg defal nañ ko kaaba ga ci bopp dañ ko ko ubbil mu dugg ci biir ñeenti jihe yëpp bu ne mu julli ñaar rakk ñeenti foofu duñu wax xibla ndax xibla bi mooy kaaba gi mooy kaaba gi danga kii kii wan jant bi penku kii wan kii kaaba gi la jiw mooy xibla bi waaye moom ñeenti jihe yi ci biir kaaba gi la dugg jihe ba ne mu julli ñaar rakk jàng na itam ci kaaba gi foofu fii ci kaaba gi ñaari kaamil defal ko addi Sëriñ Tuubaa nga xam ne lu yëngu rek lu mu yëngu rek defal naa ko addi Sëriñ Tuubaa waaw da doon ko woyofal boppam yàlla da koo diisal gan bu fekkoon woyofalu boppam kenn du ci moom waaye bëgg nit ñi ak yërëm leen ak bëgg leen dimbali dafa tax dafa woyofaloon boppam lool lool lool lool ba ak kenn ku ne boo ñëwee day wàcce boppam ba toll ak yow ba nga ñime ko ba mën a bay kaf yow di rey yow sax mm. di koo xam ni kiit soxla ci àddina dara dara ci li ñuy wax euh, orgueil wala titre wala mm, euh, daraja soxlawu ko woon loolu moo tax jëfante mënoon naa jëfante ñëpp te jëfante nag ñëpp ñi ma jamono ak lu waayu man rëy rëy ak lu waayu tuut tuut tuut dina mën naa jëfante gi te boo dikkee ci moom rek boo fa jógee soxal sedd ba looloo tax amante woon na ak mboolem ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci réew mi te kilifa yi diine ay kilifa yi ay ngir amoon na leen ñoom ñëpp seqante ak ñoom jàmm ak sudur ak tàng ak masla ak it diggante yu neex lool Cheikh Seyd Mahamadou Fadou Mbacké ñi mu jamonoon teel ñëpp daf leen daan jokk ñu di ko jokk ku mel na cheikh naa cheikh Talib Ouya wul du cheikh Saadou Abi seen jokkoo rafetoo woon na lool lool lool noonu la doon jokkoo mbokkam mu baax nu mu jamono <coughs> Seydina Issa Laye caw fii ci Cap Vert dégg naa ma masuñu umpante ci dara lu soxal diine daan nañ ci joxalante kàddu daañ ci yebalante ay ndaw <coughs> pour bokk ca wax suñu waxee ba pare tànn ci la ñu wax loo xam ne dana nekk njëriñal àdduna ak àllaaxira bari na photo yoo xam ne soo ko seetee daa gis ñu bokk ci ant noonu nii la daan jokkee mbokkam ma di suñu maam Cheikh Hadji Seydou Nourou Tall ma suñu umpante ñoom ñaar ci dara dara dara noonu itam la daan jokkoonteeg suñu wajuru tedd wa dalika al arifu billah al kaamil Baye Khalifa Niass mu xam ñu naan Amina moom mi nga xam ne baayam yónni na ko yebal ko ay yoon mu ñëw njaareem fekk fa sëriñ bu mag ba ak ya nga xam dox na ci diggante suñu ñaari maam yooyu ak xasida bu rafet ba nga xam def na ko moom خليفه نياس بواي خليفه آه، قصيد ابو رافد بن خمنا الشيخ محمد الفاضل بن خمنا كان كاتبا وكان شاعرا وكان اديبا <coughs> ديلو نكوكو موي مبيغوم نيب نونو يتم لا ميلو نك ان لا اندي و نك مبوكم مباخما سيدي ابو بكر سي نجد الشيخ الحاج مالك رضي الله عنه يوم يلا مو ديفون ديك تشوفيل سي سين ديغنتي sëriñ bu mu kutnde ci Njaasaan Alaaji Ibrahima Ñas moom tam daana ñëw di ko seet fii xalifa cene ba xalifa Seydina Limaamu Laay ñi nga xam ne ñoo nekk fee ca jàmmal ca Siin Saalum ñoom tam daan nañ daan amante woon naa ñoom ba daan nañ fi ñëw fii sëriñ Ahmadou Dem bu Sookoon chérif ya nekk ca Casamance nga xam ni am na ci ko ñuy wax chérif Makka Aydara kooku moom ko mu noonu di ko seet si ak ñi nga xam ne ñoo jiite Euh, diine yi foofu ci jul kilifa jul ya nekk bundu te Sénégal géfete euh, penko ak ñi nga xam ñoo nekkoon ngéwul yi kilifa yi diine ak ñu nekkoon waalo ñu nekkoon gànjool ak ñu nekkoon jorof ak benn benn boo xam ne ay kilifa lañu yu am solo ku ñuy wax sëriñ Amadou Cissé mu pir moom tam ku miinoon kër gi la ak sëriñ Ahabaat Sall bu Louga Alaaji Seydou Nourou Tall nag moom digganteem ak sëriñ bi dafa yàgg lool ndax dañoo xamante bu yàgg a yàgg a yàgg am diggante bu rafet te lépp mais lépp lu mas a xew ci Tuubaa mu teew fi bi ñuy julli ji baax ji ñëpp a ñëw ñëpp a ñëw Amadou am bëlu sax Amadou bëlu sax ñëw na bàyyi ko ni sax Seyd Nour Tall boobu de ñëw na keroog jëloon na parole sax ne ceeb yi ajeen mi ngi ci loxo sëñ Falilou Falilou noonu woyof na sëñ Falilou woyof na sëñ Falilou woyof na ba mu ñettoon sëñ bi ne ko tëddis kan ci biir te dis na ci biir te dis gan na ci biir ñu waayoon moom ñëpp ñëpp koy <laughs> ñëpp koy dégg diggante ñi nekkoon ñëpp ñëpp la ñëpp la amoon diggante sëñ Babacar Sy ma nekkoon xalifa général di Tidiane ci jamono boobu ah, dañ daan téléphonante nga xam ne euh, maa ngi nangu ci Cheikh Tidiane Sy mii xalifa général di Tidiane yàlla na ko yàlla may ak te yàggal ko fi waaye ci làmmiñam laa nangoo mu ne bés bi ma bés bi may njëkk indi téléphone ci kër sëñ Babacar Sy damaa dem Dakar indi ay tubaab ak seeni i appareil ñu dikk tubaab yi di yéeg ne ne mag ñëpp ne Cheikh mii de fam mu jëm ak ñun Cheikh mii de fam mu jëm ak ñun xamisu ko ñu yéeg monté téléphone yi monte fil yi fekk ba Sëñ Fallu am na téléphone Cheikh moo koy wax ma dégg ci ci ci làmmiñam nee man noppi dégg nga daal di am numéro Cheikh Amadou Fadil téléphoné ko mu ne kooku ma ne ko Cheikh ma Tidiane dama lay jox sa mbokku Babacar Sy daal di sëñ Babacar wuy sëñ Fallu ne ñoom ñaar ñu waxante waxante ba seen xol sedd ne bañ noppee sëñ Babacar ne ma day Cheikh di xaw a ban bis waaye tey jii li nga ma defal musuma defal lu ni mel seeta lool sëñ Abdou Aziz nag moom fa moom daal def bu ñaare da daan ñëw dem Ndindi dem Aliya ndax moom ñoo bokk ca ca ca ca Ousmane ca Mati Mbàkke bokkaat feneen euh, dañoo bokk dañu jax solo la góor gi ay jeexitam ci digënté Touba ak Tiwaawan dàllam masu ca noppaluku jeexite ma sul far ben yoon mu bëgg Cheikh Al Fadl def ko def ko mag def ko kilifa def ko soppe du dugg ci dara te waxu ci ak mom magam ju tedd ju bax ji itam du soxla dara te yek na ne seenu jotay moy mën tax lam ci bëgg mu am ko te neewul wol leen ma amut yoni sëñ Modou Boussa Dieng wala mu wax ko Dramé ñu jaar fa ñu jaar ba bay Abdou dem Touba buy juk dégg na mom ci bopam mu wax ay yoon amna bés ñu wolen ci Ndar gouverneur général wolen am décoration yu leen war a defal bu jóge France gouverneur général war ànd kilifa gi nga xam ne moo ko indi doonoon ministre ca yooyee jamono ñu woo leen ca Ndar Cheikh Abdoul Aziz nee bi nga xamee ne yegg si nañu euh, comme que seeni tur moom Abdou Aziz la tudd mu ngi tàmbalee a lettre alphabétique bi Serigne Fallou Ndiakhate <coughs> Diop ñu ne ko non yow ya mu ne déedéet Serigne Fallou mooy sama mag mooy sama kilifa ci jotaay bi ñëpp samay mbokk lañ la waaye moom laa gën a bokkal mooy sama kilifa nag daal di jóg góor gi nee na mel na ne sax du ñàkk benn benn yoo xam ne xaw nañu tiisoo xaw loolu. waaye bi góor gi jógee rek te ñoo ñooñu am na ci ñu taxaw ñi mu àndal am ma sorong sorong ñett ñett escalier dem wàcc fukki chaise jox ko mu toog mu tegal ko ko ci wetu sëñ Fallu juróom-ñeenti chaise ca des yëpp ñam lenn ca ñam mu àndaloon te amuñu fu ñu toog ñu toog ba mu fa jógee mun na leen gars lu ngeen wax gis ngeen teral sa kilifa barke ba ca yàlla def du ko xaari ëllëg ci saa si la koy def la koy wane su fekkoon ne du dama jox sama kilifa cër bi ma ko jox te mu jaadu tawar kon ci taxawaay bi ngeen di kon te du ngeen xam ñaata heure lay duré maa ngi fàttaliku bi suñu wajuru tedd wa boroom cër yi boroom maye cheikhul xalifa sidi aboubacar si naj lu cheikh il xaji malikin radiallahu anhu ba mu génne àdduna sëriñ fàllu mbàkke mu ngi génn àdduna moom sidi abubakar si altine talaata àllarba alxames ajjuma rakkam ju baax ju tedd ja toppoon ci ginnaawam di cheikh seydi mouhamadul mansour di magu mawlana al cheikh alxaaji abdul aziz al cheikh alxaaji mouhamadul habib génn àdduna juróomi fan a dox ñeenti fan a dox seen diggante mu fekki ko ba mu ñëwee jaale si bokk na ci la mu wax ci njaal ma ne Abdul Aziz su soobee yàlla li ma xam ci yow li ma xam ci yow ci bëgg mbokk ci di ko dox ak ponk kilif téef sa xilaafa gi dana yàgg dana neex te ci mbaaxu yàlla lépp loo ci sumb ci sa barke baay Cheikh El Hadj ak sa barke baay cheikhul xadim si ahmad bamba loo ci sumb daa ko yeggaleeg jàmm te itam nag lépp léppay sotti waaye lépp léppay sotti confirmer loolu ci ay taxawaay nag waxu ko rek dem waaye confirmer ko ci ay ñaan confirmer ko ci nemmiku bu dee bëccëg cinquante huit muy at ma topp ci seen laxas bu Sidi Aboubacar ak Cheikh Alhaj Mouhamadou Mansour radiallahu anhum góor gi ne dafay dekkal toolu jagsaaw ba mu ca nekkee <clears throat> maa ngi fàttaliku boobu quinze ans laa am Cheikh Seyd Mouhamadul Fadl yónnee ko jiwu wu doy wu mat wu rafet sax danga naan dañu tànn lépp <clears throat> boole ca ñaari fasu naaru góor yoo xam ne benn bi dafa weex benn bi dafa xonq <clears throat> yu mat sëkk yu rafet nekkoon nañ ko jox Abdou nee leen ko na ko baye jiwu bi na ko jiyee tool bi te ngeen xamal ko ne Fallou nee na mu ngi sa wet rek loo loo loo nekk rek ma nga ci yow daal di jox njaboot daal di jox ndigalu kilifa yi dëkk Tiwaawan ndigal njabootu maam Cheikh Maroumba Guèye ak serigne Amad Dia Aminta ma fa nekkaloon Cheikh Seyd Mouhamadou Moustapha Mbacké mu jigi mu nekkal fa serigne Cheikh Mouhamadou Ahmad Mbacké Gaynde Fatma ne leen joxe naa ndigal lépp xam na sëriñ Abdou woote na ko ci liggéey muy jëm ci Jaksaaw mu jëm ci lu dul Jaksaaw ci yeneeni tool su fekkoon ñu jàpp sama liggéey nañ ko bàyyi te fekk ko ba lépp loole ba lool la mu bëgg ca loole mu woote lépp sotti ci soog a dem sombos sëñ Fallu loolu mosu ko ñàkk xalaat ci dundal mbokk gi ak wëllëri gi wax naa la fu ma gis la mooy jëkk laaj mooy ana sa bàyyi la Lamine moom mooy jëkk laaj yooyu dafa di yu dafa di wëllëri gu yàgg sëñ Fadul nag daan na ko toppatoo ndax amul xew-xew bu njaasaan daan xew def te du yeble moom sëriñ Fadil dafa yeble njaasaan ñetti fan la daan gàmmu ñetti fan mun daan teeru ganale gunge ba ca ganale ga mu yónnee ci Baye Sidi Lamine Baye Sidi Lamine ah waaye man daal sëñ Fallou daal dëgg-dëgg moo xir moom biig biig rek biig rek mi ngi maa wax xam sëñ Fallou nga ci Touba mu ni biig rek mi ngi may wax waaw léegi sëñ Fallou ci Touba ba moo yónnee ca ganale ga dafa ne ah waay waay lii de waay fàtte woon naa ko jox démb de fàcc naa ko jox Sidi Sidi dem leen yóbbu ngeen jox ko kon ñoom bu dul gisu zahir gisee zahir nii sax daan doon gisee ci baatin te loolu wane na a ah, moom nag ak sëñ Babacar si ñoo bokk benn maam benn maam ñoo ko bokk taxoon ñu daan dundal mbokk gi fu nu mës a toll di ko rafetal ndax loolu moo di li nu war seen diggante ak moom dañ koo wegoon bu baax bëgg ko doyloo ko moom itam mu ànd ci lépp lu ñu nekk kenn ku ci ne ci ñoom loo ne ci xewu diine walla looy def di ko jëf ci lislaam bi danga ko ko yëgal te moom itam dana jëpp ànd dugal ci eh, bokk ci bokkin woo xam ni bokkinu boppam la yon ca na nga xamni mom la mané ak na nga xamni moy mooy moy mooy loo xam di ca dugg waxtu jot fi ma sa xew lu ne ci bala bala ñu ci def dara ci ci wuri waaw mu def ci defam ñi nga xamni ñay kilifa yi nga xamni kilifa yi aada lañu ñom itam amoon na seen digënté rafet ak ñom surtout ku démé ni Ala Ibrahima Diop grand serigne Dakar wala kilifa yu lébu yu mag yi alaaji mbay jaan jagaay alaaji cerno wat mbeng ñoo ñëpp amante woon na ak ñoom gannaaw loolu ki nga xam ni mooy kilifa rabbe yi ñu di ko wax monseigneur Thiandoum amante woon na ak moom itam ba ma jóge na ndakaaru ñëw gane si ko Touba ci loo xam li sëñ ko mayoon audience bu rëy moo ñu bokk fii ci Touba ginnaaw loolu it ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon te euh, nga xam ne ay naari Beirut lañu wala ay tubaab te nekk ci commerce bi ak def ay yaxantu ñoom ñëpp itam dañ doon wutaamanteeg moom ndax cër bi ko yàlla jox ak doole ji ko yàlla jox tax na ñoom seen njëriñ la woon pour kenn ku ne amanteeg moom amante ba gën ci yow ah ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon ci jamono jamono yilif réew mi moo xam ci jamono tubaab yi la ak ginnaaw tubaab yi ñoom ñëpp itam xam gu ñu xam ne amanteeg moom seen njëriña tax na ñoom ñëpp dañoo wutoon amanteeg moom amante bu leer nañ ba kenn ku ci danga fi daan ñëw ginnaaw loolu ñi nga xam ñoo fi nekk di doxal politique ci jamono tubaab yi ba ci léegi itam ñoom itam daf leen ubbiloon boppam ba kenn ku ci ne di ñëw di ko seet si waxtu wu jot dëgg la ah, kii ñu wax Senghor ak Mamadou Dia ñoo ko gënoon a jige ba tax na Senghor xamoon na kan mooy sëñ Fallu xamoon na ko ndax eh, won na boppam ca ba mu jafee ndax ca Kawlax la woon Senghor daje fa ak ñi mu doon xëccool kër gi sëñ Fallu ca Kawlax boroom kër gi ñii doon xëccoo sengoor la àndal àndaloon ak sengoor ñi doon xëccoo sengoor ñoo jëkk ñëw ci sëñ Fallu ca Kawlax moo tax yàlla lu muy dogal rek am na fu mu koy jaareel sëñ ñoo ñu wax seen soxla ba pare sëñ Fallu ca teraanga ga fab xaalis def naa fukki junne la woon ne loolu ngeen di wëgg wëgg seen daaba yi seen woto yi def leen ko ci waaye ci essence ñu nangu dem señ fallu ni won na nak mo juma kumaci dal kuma ci kuma ci kuma ci kuma ci dimbalé rek kuma ci dimbalé rek insha di nga am réew mi waaw di nga am nit ñi nak yalla denk na mu nit ñi ba sengor ñëwee lamu joxone ñi fi jitu mu fabate lenu tollu ni sengor am ngeen wëgg wëgg ke sen sen sen woto yoy mu ne ko jox jël nak def nak adiya la mu wax ak jël ya engagement ci walu juma ji mu ni ko insha allah lolou sengor xamone nako sengor xamone nako ba tax na itam moom chance bi mu amoon moom Senghor dafa rëy ba mu ñëwee jëkk seet si Serigne waxu ko soxlaa moom ci boppam mais soxla Serigne Falilou la jëkk wax Serigne Falilou mooy ni ko sëñ bi kat damay lay seet ci waaye danaa la wax ni buñ ma élire député danaa def lu ma mën pour dimbale la nga àggale jumaa ji ngay def te jumaa sëñ fa sëñ Falilou bu ñu seetee am na lu bare Touba moo ko def Touba li ci ëpp yëpp entre 1945 et 1968 1968 euh, bi euh, sëñ Falilou génn àddina am na ju bare man bi ma ñëw euh, bi ma ñëw Touba bu ma seet sëñ yu ci néegu ñax laa koy fekk waaye liñ koy gën gën a jege taxul woon mu tëj buntam kenn ñëpp daan ñëw fu waay jóge rek ci politique da nga ñëw di ko set si di wax ak moom di diso moom loolu mooy li nga xam ni moo jël fu fu masanee dañ dem di ko fa fekke ñi nga xam ni ñooy wetu tubaab yi bi ñu fi nekkee ñoom itam dañu ko joxoon cir ngir xam gu xam dayoom ci réew mi te xam ne dara mënta sotti ci réew mi tànn ci ba tax na gouverneur yi senegal yi fi daan nekk nekk ndar lu bokkul ak tournée yi ndax ko ci ne at mu nekk da nga daan def tournée war réew mi te booy def tournée faaw ñëw Touba waaye ginaaw tournée yooyu dañu ko beraloon léeg-léeg kenn ci ñoom jóge fa ñëw yenn si fii ci moom ngan boo xam ne yi da koy wan ne ko yaa ma tax a jóg ngir bëgg lu ko neex Mm-hmm. Cheikh Amadou Fadil dem na ba tabaarakallaahu da ngay defe ne rek moom réew mi kee nekk kee mm-hmm. moom dafa yëg dafa yëg li ko sëriñ bi defal ah, boobu mu daan wax ak gaa yi di di di wax ba maay senegal lool senegal ñëpp a ngi fi. Mm-hmm. ñëpp a ngi fi waaye moom dafa yëgoon booba fi li mu am ak fi mu ko jële ah, loolu da ko te da ko doon da dund de nguur gi fi ne mosu leen bàyyi ak seen bopp. conseil de cabinet ñu naan dañuy booy dem ci daam daraame mi secrétaire mu wax la luy luy xew suba waaye am na jamono fii tey euh, chef de arrondissement moo xëy joxe ñeenti tur daam daraame gay ma gay baxaw faal jang deng leer jox leen ne leen ñii nañ leen nañ koy budd barab sàngam diw barab sàngam diw barab sàngam gars yi am kuñ tudd ne ko diw diw de daf mun jàng mu ne déet kenn tubaab nekkatu fi tàcc yomb na lool ay wolof lay ay wolof la ñuy wax wolof rek la ñuy wax tubaab nekkatu fi ñu daal amul amul leneen ñu daal di yóbbu fii réseau jur fii <laughs> dégg ab góor noonu ak ab dara dara dafa bokkoon ci yëf yi da bokkoon loolu mooy yëg ne yëg ne mbir mi da ngaa war a farda sa wujud gars yi bu ku leen bàyyeeg sa bopp fi ne dañ lay dañ lay yóbbu fu la neexul waaye moom dafa yëgoon lim doon sur le plan am na jamono ci réew ay yëngu-yëngu yu xaw am waaye lu ci cheikh alxaaji abdul aziz war a masa taxawee pour yëwanal lu génn cadre diine la wala ci cadre social la te social société ku ko tudd tudd nga diine ndax diine ëmb lépp waaye concerné wul Touba concerné wul Tivaouane waaye ci réew mi rek la Cheikh Seyd Mouhamadul Fadal su fa góor gi yónnee lépp lu mu ca war a joxe ci ndigal wala mu war ca taxawu daf koy daal di fasaase ay silaatam nag masul def inqitaa baynahum wa bayna ixwatihi fi Tiwaawan maa ngi nangoo ci làmmiñu suñu mag suñu kilifa Cheikh Seyd Ahmed Tijani mu ne dafa daan jékki-jékki rek wóolu ko ne ko waaye yow de de de ma tàggu waaye de ma tàggu man kat léeg-léeg sa sa sa baykat da daan wax mën ñuy diisoo bu Sidi Aboubacar si waaye yow léeg damay dégg rek ci xëy ca marché bëri nee na nangam nangam

ba président Matar Ould Dara mi njëkk a nekk président république Ganaar bàyyam fii da daan ñëw ak ñeneen. ñoom naar ganal xam nga baaxuñ di kenn dañ lay lu tu seet la testé la ba gis lu wóor a wóor ñu soxlaa teg fi lay teg bu dul loolu ñu daal lay boole ci groupe bi. bu ko defee nag ñoom seen bopp nag ñuy jamanteeg moom ci xam-xam te c'est lu important la kenn ku ci ne tey da ngay def woy wa gën a rafet. sonn ca lool way ko ko daal dikk daal koy jox ci néeg bu mag bi xam ne bu ko yëree ba mu jeex fi saase day daal di wëlbati këyitoo laaj xale bindukaay fi saase sab jataay lay dafa weneen way wu dàq sa jox la ko te di di di ci ndir su gàtt yow nga waar te fekk na boo yow am nga ci fan yoo xam ne yaa ngi koy <laughs> yaa ngi koy defar ak a defaraat defar ak a defaraat defar ak a defaraat Mouhamad Abdoulaye Al téere boo xam ne mu ngi ko tuddee Nusratu Nadim def na ci lu bare ci sëriñ bi Cheikh Amadou Moustapha Cheikh Amadou Fadil Cheikh Maam Thierno suñu gaar euh, usra bi daal waaye beral na Cheikh Amadou Fadil yoo xam ni yi doy na waar ah keneen itam benn naaru gànnaar moom it Abdoulaye la tudd ba mu koy ba seen diggante jaxasoo am lu gis ci moom lu mu ci moom mu daal di jël xalima moom itam dugal na ci gannaar lo xamni ni si tra nga xeeti alal de kenn musu ko fa dugal graw seigne touba motax keur gi njooxe la woon li ma lay wax ci gi da ko indi ba ci digëntem ak ñi nga xamni ñoy wa kër bi di doomi sëriñ bi góor ak jigen da ko taamu si Mourou sa mooy mak ba ci soxla may kenn ku mu ci gis day mel ni gis na sëriñ Tuubaa na mu fonkoon sëriñ bi fonke na mu wormaale woon sëriñ bi ragale woon sëriñ bi lay ragale loolu mooy diggante moom ñoom bi Seexul Xaadim di jógee njaareem di ñibbi si Tuubaa benn kër Cheikh Mouhamadoul Fadil moo nekk fii mu nekk li ci yëpp ña nga ña nga woon feneen kër gu mag yi di kër gu Daaru Xudoos gi moo ne fi mu nekk kër Cheikh Amadou Fadil ne ci gis gi yaari kër yooyu moo fi nekk boobu waaye beneen kër nekku fi booba kër yaari kër yooyu bu wéyee kër sëñ Amsatu Jaxate ngay wax kër sëñ Omar Guèye ak kër maam Thierno gi nga xam ne mooy fii kër sëñ Abdou Khadir ne te boobu kër gaa fa ne waaye maam Thierno nekku fi bi moom bi mu ñëwee la xam ne cheikh bi moom waa këram ñoo ko war a wër mu dal di ci ci lotissement bi mu daal di indi waa kër sëñ bi ñu wër seen seen seen sëriñ nii mu mel tey noonu Cheikh Ahmadou Fadil moo ko xalaat moo ko defee noonu. bañ ko wartee màggal la woo kenn ku ne mu la yaay na fii sëñ Saliou wane woon fii ak sëñ Abdou Lahad ak sëñ Mourtala ak sëñ Abdou Khadir ak sëñ Souhaïbou fii te te téere yi ne sëñ Souhaïbou ko moom. waaw barke lépp moo ko def moom koy ku fi am kër rek gannaaw la tamit sëñ sëñ Fallou. waaw waa ko sëñ Tuubaa yi kenn ku ne kenn ku ne moo jox ko. lépp lu laal sëriñ bi moom da ko teg ca kaw ñooñu ñi nga xam ne kilifa yu mag yi nga xam ne ñaan doon ak sëriñ bi te sëriñ bi seexal leen di seex su mag si moo xam ci bokk la moo xam ñeneen la te nga xam ne ñëpp sëñ bi leen def li ñu nekk la sëñ bi jeexeetal ci ñoom loolu la looloo ko doy te kenn ku ñu ne amoon naa yow diggante boo xam ne da ngay def ne yow rek laan yow rek yaa ko moom ndax moom daray sëriñ bi dafa tuuru ci moom lépp dafa rëy ci moom ñoom ñoo ñee ñoom sëriñ bi lañ ko def moom itam mu leen xooli sëriñ bi moo tax ni nga wax tey mu fab ak njabootam jaxasoo ak ñoom lépp parce que sëriñ bi rek ci loolu waaw loolu rek. ñi ñi mu gënoon jaxasul tigi tigi sëñ Modou Diarra moom dafay nekkoon moom dafay nekkoon gis nga wax na ci moom loolu lii ma waxoon waaye sëñ gaawaan nag moo doon xaaritam boo xam ni eh, fa tabaarakallaahu seen diggante dafa xóotoon. سيج مسامبا يتم دارا وخ نم سيج مسامبا رك لايم مسامبا كان مفيد المستفيد ومن جل المستفيد اذا ما الناس قد شحطوا تاغ وم كو كين مسكو غيس دي واخني نك موي موي كيغا خامني فوني جليتي بو دين دمي فوني جليتي كو خامني خساي سيغ توباي دانيو كو دنج سي غاغانتي تي دو سي دو سي دو سي تخبط لامي واخ موي حقيقه دي مام جانو برايم فتبارك الله أتيت أتيت إلى في دار المعطي أتيت إلى المعطى في دار المعطي خامني نياري بيت الله يتم تبارك الله بعد يتوقف في يوم بواي بام دمي سين بدف لمار دف لب خامني كي دوام سين توبا سين توبا موي سينيم لب دال دي بخ دل سيات نيغا خامني يتم نيوم لبوك نيب سين توبا كوتيني Euh, wala ñoom la ñoom la sëñ Tuubaa bokk ñoom sëñ Mor Anta Sali ku ci ne dalaal jox cere way jur mm-hmm. bàyyi diw la la wax sëñ sëñ diw bàyyi Cerno bàyyi sëñ sëñ gaawaan ñi nga xam ni it nekk na ko di dimbali ko na ko ay xetale ko ay nit ñoo xam ne ñi dañoo dem ba àdduna jot leen ba seen sag di bëgg a sàggi ku te ñuy boromi kersa fay leen i bor wala xetal leen ci xaalisu boppam la mu ci def kenn xamuñu ko ay jàkka la mu ci tabax dafa baree bari boo ne su te bi ci gën a mën a ràññi ku ñu mën koo xam mooy jàkka ji ci mbàkki xewal jumaa ji ci mbàkki xewal ay jàkka ki jumaay ndax daan tabax yi jàkka di bi ñuy bi muy liggéey jumaa ji itam jumaa ji at bu ne mu joxe ci million jumaa ji Sénégal jooju at mu ne joxe sëñ Fallu joxoon ci ci million ba ba ba ba ba ci lu loo xam lu wér. jumaa yi Ndakaar yi ki bañ koy tabax yërëm lañ ko tabax ba bi mu noppee at mu jot man mii la daan jox xaalis maay dem yóbbul leen ko. E, gannaaw loola ñi nga xam ni dimbali na ko également ci ñu néew doole ñoo xam ne ñii amuñu benn pexe bu dul moom mëni su ko lim te dafa ubbi woon boppam ba ñëpp mën agsi ci moom te ko agsi ci moom rek boo ko waxee soxla mu fajal yooyu nag nga xam ne moom la dimbali mbindeef yi bari na bari goo xam ne gi dama la ni moom mëni su koo lim te li ci gën a doy waar moo di lu ci ne bu koy def sutura lay doon ak secret yaag moom rek ku ko xam yaag ko tab gi moom dem na ba si yeeni fil qurbi wal bu'di fii nufuri na daw ki ko jege ki ko sorek ki làkk ak ki làkkut ak ñépp yem ci moom ci ku ñëw ngir soxla. doo noon koo xam ne. Euh, li mu yëwanal ci dundu àddunaam yàlla rekk ko xam te gis nga mbaax ku yàlla sedd jaam na ko ñépp nangu bari na koo xam ne ay gàllankoor dal na la ci sa dox ci lefu àdduna mi nga bugg a dox dog ci la nga ca war a dog yàlla ne la jot na sëkk nga dellu si ci man bari na ko ci am ay tolof tolof yi ci lenn ti mbir la ko waral moo di bañal nit cëram wala weddi ko waaye Cheikh Sidi Mouhamadou Fadal baraka la maa ngi nettali léegi sëñ Mouhamadou Fadal koo xam ne da daan ñëw rek jarul ñuy tudd turam waaye nag booy jur la te mbokk la waaye ku neex la woon bëgg lool nag sëñ Fall xam ko lool itam xam nga moo tax muy jaar ak moom foofu xam ne du mu jaar ak moom de dana ko ko nangu fekk du lu yàlla tere moom daal ñaari fan bàkke la dëkkoon ñaari fan ñett mu ñëw ne ko soxna sa dafa yewi ko mu jox ko woote nañ ko jox lii nañ ko jox ceeb nañ ko jox dugub euh, moom da daan naddi rek du làmb du sañ wala muy jël xaalis di wut du mooy di weññ di ay naddi rek jox na jox ko loolu lépp mu dem kañ la bés ba mu ne ko suba la dem Mbàkke waaye mën nga bañ a yàppale de sàlla sa jaboot dafa nekk ñëpp dañuy teew kon boobu bul kenn beneen yoon mu ñëw soxna sa dafa génn te juróom benn weer ci topp mu ne ko ah lu mu am mu ne ko góor la am sàllaaw yow laa ko bëgg a tudde góor gi kontaan jaar fa mu jaarul mu ëpp lool sax la mu ko joxul xale ba xaw dëgg tuuti nag ba war a toll xëy na ci juróom-ñaari at jëm juróom-ñett mu ne ko dañuy xëy suba Touba siyaar dama la yóbbu ci sëñ bi sëñ Fàllu sama mbokk nag baax ma sama géer ba sama sang ba sama nang dafa nag dama bëgg nag ab ab bind laa bëgg muy wala jàngal na mokk nag da ngay gàtt xel yëpp nirul ne sa baay bii di wax yow amalu takk su ñu demee dama naan fallu su ma nee fallu neel mbakke te te moom baddu la tudd ba dara su ma nee fallu na ne mbakke mu ne fallu mbakke xale bi naan fallu mbakke fallu mbakke mu ne ko su boobu jafee su ma nee galas neel mbakke tabaarakallahu xale bi di ko nappal di ko nappal xam nga nag li ñu naan bind bu bëri bind soo ko mokkale bu mokk day dem ba nga fàtte ko waaw day day bëgg lool waaw day bëgg lool ah mu yegg ñu ñu wax ko ko ne ko góor gi diw ñëw na rahmatullah ko du neexoon la rahmatullahi taala alayhi wa radi anhu daal ñu waxtaan waxtaan mu ne ko sàllam indi naa sax sa turandoo bëri ne fàllu mu ne pat waaye ca sànni waaye fàllu

نيوسون بايفال رضي الله عنه وقتانا موم بجوك دي دم وخل دار جو دي نيو كسوخنا سا امنا نعم غان ولا سان فال نكو علي ديك ديك ديك مو تاي دار فور مان لا جوخ خولال ما خولال ما خولال ما بوبو خيتو جيفين جيفلنت رضي الله عنه موتاخ benn arab walla ci ma ko arab nee na bokk na ci li ñuy defe nit sang ci ñun moo di ñu di ko nax ci darajaam di ko nax ci alalam mu xam nax ya te nangu ko lu nit ñi xamul ci sëñ Fallu sëñ Fallu nitu sunna la na sunna lool kon naka xam nga julli googu sëñ Bamba julli ca Ndar jàngale yi bari génn na ci bokk na ci lu maa ngi koy jële ci sëriñ Abdul Quddus Mbacke yenn yàlla yokk leeram mu ni maam Birahim Ceer maam Ceerno Birahim moo ko wax dafa ni ma julli ga sëñ Bamba julli ca bureau gouverneur julliwu fa suba julliwu fa tisbaar julliwu fa takkusaan julliwu fa timis julliwu fa gee kon julliwu fa farata li mu fa julli nun koy tuddee naa la kon sunna la maam Cerno nag nee na nekk ci euh, euh, fonk sunna ba nekk ci bés boo xam ni ñëpp jàpp nañ ni bés bu xat la pour yow waaye nga dem jooxe sunna googu yow doo fekk farata di ko sàggane fekk farata di ko sàggane ah sëñ Fallu daan na wax naan ku fonkul sunna du fonk farata waaye bi mu demee ba nga xam ne mel na ni mbir mi nag liñ ko doon def loo mat na mu wax loolu mu wax ne baatuma fi naal te loolu ku ne xam na ne ku ko wax te muy te muy lu wér léegi nga dem ndax nit ñi baaxuñ loolu waaye seetal keroog bi mu wooyee seex Abdoul Ahad ne ko ñëwal ñëwal génn nag ñëwal génn jox wax moom la wax moom Sëñ Abdoul Ahad jóg wër réew mépp wër réew mépp moom bi na fa tabarak ko nga xam ne fu mu yendu su su su su su su su suñ wàccee rek lañ fa daje lépp ñu mu yónnee ko ba mu wëree ba réew mi lañ ba mu dikkee mu ne ko ndax dem nga génne mu ne ko mu ko demal génne nga xam ne génne la mujjee génne keroog lu yéeme yéeme fa tabaarakallaahu xam-xam ba waaye lu bari lañ dajale waaye ba mu dikkee sëñ bi dafa reer ne ko ne ko lii di yaa ko mas a am <laughs> ndax ndax dafa jóge ci ay ay mbir waaye mu egg si nag mu daal di mu ngoog nag mu mu ngoog ma daal di waaj fi ne daal di waaj daal di gàtt la fa teg niis gàtt la fa teg daal di dem. teg bu ma teg sëñ Tuubaa foo ko kenn tegul léppam di sëñ Tuubaa loolu rek mooy li nga xam ne moom laa ci mën a wax ni nan ko roy ci loolu ndax loolu mu dëggal la mu waxoon sëriñ bi ni ko jaay naa la sama njuréel jënd ko taalibe ndax ku ne xam ne ni doomu sëriñ dal dolatuñ ci ja waaye ak taalibe gënal ko ba tax mu jaay ko sëriñ bi nungul ko mu delloowaat ko ko àddiya kon loolu ma xam leen ni noonu ñi di taalibe noonu gën a fonkaat taalibe gi te xam ni kat lu boo xam ne kii jëndee nañ ko doomi sëñ Tuubaa loolu la toll woon lu mu am nag moom taal bi goo ko may kon loolu rek la kon nag bisam bi bu ñëwee nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax su bisam bi ñëwee duñu mën dudul ñaan yàlla kilifa yi yàgg ko taxawee Cheikh Seydi Mouhamadou Mokhtar ak suñu mag xalifaam ba nga xam ne tey moo fa nekk wutu ko ak njaboot ko yëpp bés boobu itam bi fi mu ko yóbbu woon fi mu ko yóbbu tey jàpp naa ne gannaaw màggal Tuubaa gu mag gi safar bu mel ni kasu rajo bii nga xam ne moom lañ koy defal jàpp ma ne euh, geneen demee na ni boobu itam Cheikh Mouhamadoul Moustapha Fadilu yal na ko yàlla dolli ay gërëm fa mu ne moo ko defal ni Cheikh Mouhamadoul Fadil defal Cheikh Xadim bés boobu moom itam moo ko defal ndax kasu rajab sëñ bi ni mu ko daa màggalee dalaa ñëw bu ñu ne jii la guddi ñaar fukki juróom-ñaar mu ñëw daaru salaam daaru salaam nga xam ne fa la feeñee Cheikh Moudou Moussa feeñ fa mu dem ci kër mbokkam di xaritam di sëñ Moudou Ma Cheikh Moudou Mamoun fanaan fa ñu fanaan def seen yëf jàng seen alxuraan def seen i def seen i berne ba bët set mu jógee fa jaar yoonu jolof yoonu jolof boobu nga xam ne yoonu jolof yoonu cosaan la jaar fa dem kër mbokkam sëñ Afe Mbak sëñ Afe mi nga xam ne ñoo bokk soxna aw busu fa lay jaar booba am na ñoo xam ne ña nga woon Touba dañuy teel a dem loolu ndax booba xéewal yi ay li ñu wax dàkk dàkkare boo fa demee danga ko fay bàyyi nga xam ne booba yëf yi demeewul nii ay séri dënk la ñuy lal ci buntu kër gi sañ aafi génn def boppam neen def tànki neen Cheikh Amadou Fadil ñëw mu ubbil ko buntu ñu jàppoo ñoom ñaar diyaar ca séri dénk yooyu bañ egsi ci néeg bi sañ aafi boobu benn baraagu dénk la am amul ñaari néeg benn baraagu dénk la bu dikkee mu jàpp seex Modou Fadil ba toogloo ko ci lal bi toog ci suuf moom ñëpp nuyoo ba noppi daal di génn ñoom ñaar ñu ngunu nguni ni su gàtt daal di génn dem Dakar yi daal di tasaaroo xéw yi daal di tasaaroo Cheikh Modou Fadil noonu la ko defee diiru li mu fi ne kon kon moom lépp loo leb rek dañ la koy dañ la koy fay yaakaar naa ne it Cheikh Modou Fadil euh, yàlla defal na ko tawfiq lool ci njaboot ndax bàyyi na fi njaboot fa tabaarakallaahu yàlla yàlla xeeb dolli waaye ñi fi bàyyi day mel ni kay kay caat ci ñi gën a wutu alxuraan ci yoon yi la bokk Cheikh Amadou Moustapha mii nga xam ne moo ko njëkk a moo moom wax ci làmmiñam ni bi noppee ci sëñ moor Sànqe ci alxuraan Cheikh Amadou Fadi dafa bind leetar jox ko turandoom Cheikh Amadou Moustapha nee na bind naa Cheikh Amadou Moustapha ñeenti kaamil ñaar maa ngi ko bindee Daaru Naim benn bi Touba benn bi Taïf Cheikh Amadou Moussa Fall bi moom ma ko wax ci làmmiñam ñeenti kaamil ne bindal na ko sëñ Modou Ba mu noppee tarbiya ko ba noppi nag la bindub kaamil moom tam la bindub leetar soo ko wàcce nag indi ko ci Cheikh Amadou Moussa waaye daa mel ni moom alxuraan borom bi den cee defal loo xam ne daanaka rek moom moom moom moom tawfiix daal la loolu itam na ba gis nga tabarkalla gis nga sët yi sax am xam ne moom moom da nga xam ne nii rek luñ fàggu waaye du du du ngóor a daal da Abdul Xaadir daa wax ne kuñ dimbale laa xam waaye xaw ku jàmbaar dafa mel ni ñoom daal am nañu dimbale yàlla mbokk yi kon loolu mooy li nga xam ne li indi loolu nañ leen ko ci lenn ci dundu Serigne lu gis ngeen mbokk yi nga xam ne ay kilifa lañ yu wuute dundoon ak moom seede yi nga xam ne indi nañ ko ci jaxasoo gi jaxasoo woon ak ñim jamono te ñu seq ñëpp jàmm ak lu rafet waaye réalisation yi nga xam ne it liggéey na ko ba ñëpp tekki seen bët moom Cheikh Amadou Fadal ba 1963 68 1968 sunu borom subhaanahu wa taala e, dikkee coobareem mu wàcc ab liggéey ki njëkk a toog xalifa ci keppaaru Serigne Fallilou Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké ñu gën ko xam Serigne Modou Moussa Dieng liggéey fi liggéey yu rëy ràññi ko woon lool nekkoon jàmbaar yoo xam ne bu mu wutee sëriñ Falilou fii sëriñ Falilou bàyyee woon fi la fabee euh, réalisé réalisation yu am solo dundal relation bi doxoon diggante sëriñ Falilou ak ñim jamono teelu ñëpp rafetal ko liggéey ci liggéey yu am solo bi mu fi bàyyi ko moom it sëriñ Alxaaji Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko moom it ci njàmbaar ga ci yaatu ga ci fidwa ak jikko yu rafet ya moom it liggéey fi liggéey yu am solo yaatu ci dundal lii nga xam ne moom la doon waxtaanee muy jëflante ak seq gu rafet gu sëriñ Fallu seqaloon ak képp kum jamono te doon alxaaji Baara moom it dundal ko yaatal ko lool. ay réalisation mit ñun jamono ñëpp xam nañ ko ci taxawaay yu rafet ya ba borom bi subhaanahu wa taala moom it jëlee ko fi. moo toog ci xilaafa gi di sëriñ Abul Baraka Mbàkke ibnu Cheikh Amadul Fadal yàlla na yàlla guddal aw fanam wéral ay cëram. moom it mu dal di dal sas wi nga xam ne moom la ay magam nekkoon rek sas wi weesuwul liggéeyal lislaam yaatal ko e, tasaare njàngaleem Cheikhul Xadim radiyallahu anhu e, wane jikkoy rafet jàngal nit ñi teet leen teg leen ci asiraatul mustaqim e, yàlla na yàggal yàlla yàggal ab taxawaayam guddal aw fanam mottali ay mébétam moom mboolem njabootu Cheikh Amadou Fadal gi mboolem jullit yi fu ñu mën a nekk mbokk yi kon ñi ngi leen di jox dox daje incha allah taala bu ñu fi borom bi déwén ñu indi leen beneen documentaire ci geneen anam ci dundu Serigne Falilou eh, ñi ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñoo jàppoon ci liggéey ba mu yem rawat na kilifa yi nga xam ne dugal nañ ci eh, seen kaddu ak seenu jàppandal mbir mi feeñal ci seen yéene wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa